Fatma di rafetlu jotaay bi ak xalaat bi bi nga xam ni suñu waa kër maam Cheikh Issa Diène ñoo ko taxawal ngir xamale li nga xam ni moom mooy culture murit ak jikkoy mag ñi ñi àndoon ak sëriñ bi liñ fi jëf ak seen maqaama yi ñu amoon kon buñ ko tuddee ren maam Cheikh di xeeñtu ay jeexitam yaakaar naa ni ñi ngi ci liggéey bi Serigne Touba defoon diggante mag ñi